wax ci digitalisation bi c'est extrêmement important parce que tey Sénégal rang xam nga ban rang la jël cent quarante troisième e-government index tu vois sur cent quatre vingt euh, ay Gabon ay Maroc île Maurice Seychelles ñoo ñoo jiitu de loin te te digitalisation boobu dafay am impact ci doing business bi parce que ñi nga xam ne dañu digitaliser seen euh, seen économie paiement impôts yi à distance ak entreprise ak yu bëri ñooñu dañuy dañuy am euh, une flexibilité ci investissement yi ak entreprise yi ñëw di liggéey foofu tu vois et ça c'est très important fii am nañu benn agence gouvernementale du numérique des trucs comme ça oui mais voilà mais mais mais en réalité en réalité euh, gouvernement yi par exemple dama buggoon dem ministère de l'enseignement supérieur euh, ñoom seen sit internet xam nga seen siège fu mu nekk avenue Cheikh Anta Diop en face école Manguier loolu lañ ci bind avec un numéro téléphone boo xam ne mën nga woo bu suba. kenn du jël kenn du jël parce que numéro boobu ah, baaxatul. Ah, mais mën naa la wax li fa li fa topp. mais nekkatuñ fa léegi xam fu ñu nekk ñoo ngi ci sphère ministérielle yi jam ñaajo foofu lañ nekk. te avant ñu ngi nekkoon à l'étranger. exact xam déjà loolu rek yow boo nekkee à l'étranger même au Sénégal nga bëgg leen a ñoom li ñuy def seen site internet ak li am bokkul. ça c'est un problème parce que y a pas de mise à jour des sites internet boo wootee téléphone wala nga bind mail kenn du la tontu donc loolu ça c'est du déclaratif dañuy ñëw ne la digitaliser nañu administration bi mais en réalité c'est du déclaratif c'est absolument c'est pas vrai mais pour man il faut ñu def ko ci secteur yooyu secteur éducation secteur financier ah euh, tous les secteurs yi nga xam ne état civil bi et cetera waratoo dem di rang mairie bi euh, centre gaspar Camara naan yaa ngi wut foofu. exact exact ci wax da nga ko war a am. d'accord et puis dernier dernier point bi rek lay jeexale. ci ci surtout ci boobu.